moom nga xamante ne eh, ci élection yi am na wàcc wàcc yaatu woo xamante ne moo ko ci daal di saytu bi nga xamante ne awkay on saisiroon nañ ko ngir mu xool eh, ci eh, doxalin bi nga xamante ne waa DG direction générale des ñoo ngi koy doxale ci wàllum parrainage yeeg nu ñuy lànkalee jox Ousmane Sonko fichier daana mel ni nag communiqué ba ñu génnee neexut dara ñi nga xamante ne moo di waa DGE ba tontu nañ leen tontu sax woo xamante ni itam Euh, mundu roog benn ko goo xamante ne dox na ci ñaari administration yoo xamante ne euh, vraiment ci état la ñu bokk waaye nag euh, li ñu mënta comprendre mooy naka la administration Sénat jàpp ne effectivement doxalu DG doxalin bi nga xamante ne DG di def doxal bu dëgg du yoon ndax ci ay jamono moom doxalewul noonu kon pourquoi sur le cas de Ousmane Sonko bi ñu bëgg a doxalee noonu waaye nag tantôt nga xam ne war na ci indi itam sénégalais yu bari seen xel Euh, ñaaw na ci jiix jaaxal jot na ci am su nekk am na ko bëgg a bokk 77 la 810 90 90 ah ñu dalal internet yi nga xam ne bëgg nañ bokk ci waxtaan bi salaamaaleykum allo allo allo dégguma la dégg-dégg bi neex allo waaw Régis pas de retour je sais pas nag mais Euh, sama sama retour baaxul dafa wala dafa dafa faible donc je sais pas ah, ah, euh, su nekk internet bi aussi dafa rëcc rek ñu xaar keneen ci 77 810 90 90 77 810 90 90 foo nekk ci àdduna bi mën nga wootee daal di nga nekk wala ci bitim réew sat bu mbubb maa ngi lay nuyu yàq Ibrahima Blay ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan jam la toll salaam naa jërëm Cheikh na nga def eh, maa ngi fi yaa si jàmm bu baax journée bi sant yàlla bu baax alhamdulilah. waa France. ñu bu baax mais yéen Modou Modou yéen chaque fois yéen la ñuy jokkar bi baaraamu tuuma yéen a tax booy di jël gaal yeeg di jël yoonu Nicaragua. ah. <laughs> ah mais mais mais mais mais Cheikh nañu waxante dëgg. yow da ngay dëkk ak benn grand ca koñ. ah ngeen yàgg toogandoo di ataaya xëy na sax soo moytuwul yaa ko gën a jàng wala yaa ko ëppi diplôme. en matière de qualification moom ëppale wu la dara yow ngay rey sa bopp ngir amub xëy ah moom mu toog eh, di ataaya bu jékki-jékki rek nga ne dégg ne jël na gaal wala wala eh, voyagé na ñëw ñaar ñetti at mu ñëw tabax seen kër def ko étage R plus 1 R plus 2 jël xale ba gën a rafet koñ ba taq teg loolu ndax du nekk influence aussi eh, xale yi jël weneen yoon ngir ngir wutale Europe wala Amérique. non Mm-hmm. Oh. Les problème les problèmes de réseau, hein, c'est indépendant de notre volonté. Euh, Cheikh, Cheikh, est-ce que doo toxu tuuti allo allo Cheikh waaw euh, régie jéem jéem leen a jotaat ah, parce que phénomène bi aussi comme je l'ai dit à chaque fois léegi ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk ay immigré même Ibrahima yow am nga ci am ngeen ci wàll yéen ñi nga xam ne euh, xamante ne noonu la ndaw ñi di fàq jamono ji wutale Europe oui Cheikh waaw affaire yoo dawoon bi ma ne ma ne ma ne affaire man maanaam du foofu gis nga dañu war a xam maanaam wërsëg xam nga wërsëg dafa wute mhm. te gis ku nekk ak si sa wërsëg tey jii dèjà man maa ngi jaale waa famille waa yaa kër Papito Kara maa leen di jaale bu baax a baax. Mhm. na ko yàlla yërëm en tout cas. métti mhm. na trop mais ni mu génne àdduna moo lay wan ni maanaam wërsëg nekkul woon foofu xam nga li nga dem ba nga xam ne dugg Espagne tuuti na dese. sedd bi jàppale nga génn àdduna loolu moo lay wan ni maanaam wërsëgam du woon foofu mhm. maanaam parfois euh, ñu naan dañuy xëcc rek yàlla nekk lu gën ci ñun yow ma man li may wax nit ñi tout le temps rek du neex a wax nag parce que dañ naan peut-être yaa ngi Europe wala yaa ngi nàngam mhm. mais gaal bi gaal bi du solution parce que Jérôme lii man maa la ko wax gis nga gars ñu leen di bàyyi ñuy dugg rek mais gis nga néew ma kenn du ci am kayit de pour mën a stable mais du yomb ba pare te mën nañoo jékki-jékki rapatrier waat ñëpp yóbbu leen seen dëkk. Mhm. après su boobaa yow effort bi nga defoon yëpp xaalis bi nga jàq mhm. énergie bi nga dépense bi après léegi lan la ñaata nit ñoo ñëw ba Espagne wala ba feneen ñu rapatrier leen delloo leen seen dëkk parce que mënuñu nanguwuñ leen jox kayit wala nanguwuñ leen euh, régulariser wala daal mm-hmm. boo nekkee ci dëkk da ngay maanaam da ngay jéem a benn sant bi ñëpp am pression familiale mm-hmm. allo maa ngi lay dégg bu baax baax Cheikh allo allo oui Cheikh ñoo ngi lay dégg de ñoo ngi lay ñoo ngi koy dégg ah régie euh, ñoo koy euh, ñoo ngi koy dégg waaw waaw je pense que bien c'est des fois réseau bi noonu lay def mais fi mu doon wax aussi am na fu am solo euh, gaal gi du solution mais donc alors quelle est la solution lan ngeen jàpp ne tey moom lañ fi war a teg pour que ndaw ñi vraiment bañ a bañ dem en masse parce que aussi hein, depuis quand même on peut le dire depuis trois mois daanaka bi ñu tàmbalee dugg ci nawet bi ba nañ ci génnee mën nañu wax ni li fi fàkkeekoo xamul na la toll donc euh, moo tax it sax <laughs> démb maa ngi ci doon waxtaan ak benn kilifa mu naan recensement bi ñu wax naan dix huit millions d'habitants lañ. Euh, yoo toftal ndax mu ñu xolaat xayma yooyu noonu. waaw Cheikh ma ne comme que da nga jàpp ne. gaal gi du solution solution. léegi la nga jàpp ne tey moom lañ fa war a teg comme. ay mesures non dafa bu fort daa ngi wax téléphone sa côté foofu ma la baax de. allo. allo yi. nga ne daa am kuy wax téléphone. sa côté mais non ça va ah, ma ne comme que da nga jàpp ne gaal gi du solution léegi la nga jàpp ne tey moom fa moom lañ foor a teg comme ay ay mesures tamit ay mesures d'accompagnement wala ay quand ay projets yoo xamante ne tey euh, tax euh, vraiment ndaw ñi di am ñeerantal ci koo xamante ne dem nga Europe ñëwaat tabax seen kër yoo xam ne soo toogee sa réew soo liggéeyee deux ans wala loolu soo liggéeyee un an tey lu kooku am war nga am lu ko jege wala nga am lu ko ëpp même. waaw loolu maam xam nga maam réew bu développé wul moom day compliqué moom réew. ñi ko jiite ci moom ñoo ñoo war a accompagner les jeunes mhm. en plus tamit jeunes yi aussi am formation qualifiante bu leen permettre ñu mën a am métier mais fii université dans jeune dañuy jaar dañoo gis ku jàng vingt ans du du mën dara loo ko lan lay mën dund ak mhm. mais kooku noonu après lan lay mën a def te obligé encore dem di jàngaat métier pour mën a pour mën a exercer benn affaire mhm. kooku tey jii bu jàngoon métier même su fekkee ne gouvernement yi mettre en place dara moom dina mën a créer son propre euh, kii euh, euh, entreprise xam nga di exercer ay activité wala su fekkee ubbil entreprise sax mën a toog këram hmm. di former ay nit di liggéey xaalis hmm. loolu nag bu amul après loolu mooy indi problème boobu noonu d'accord loolu la quoi mais nag ak li mënti xew mais jël gaal gi surtout guddi yi nga xam ne ak loi immigration yi ni demee ci dëkk man du solution voilà parce que ñëpp depuis ñëpp dañuy commencé corse seen seen règle léegi boo fi ñëwee jël gaal bi ñëw ngeen bëri fi mat ay deux mille personnes mais gars yi dañuy jekki-jekki déedéet yow boo ñëw li ci bëri seen camp yi lañ leen mais gars yi boo duggee seen camp yi dee nga mm-hmm. duñ la bàyyi nga génn noonu dinañ la jox nga lekk dinañ la jox nga naan dinañ topp mais dañuy fi un jour rek acam mm-hmm. répartir leen ñun ñëpp moo tax man li ñu li ñu jàng nañ mais am nga si ay procédures yoo xam ne mën nga ko jël en tant nga dem nga ñëw ci dëkk yi légalement nga jàng. mais si si on en vient au cas de Papito quand même est-ce que moom parce que motivation yi aussi mënuñu ko xam mais ñu bari jàppoon nañ ne tey de de posture quand même nekkoon na ko xamante ne tey xëy na su sàkk woon ci ay jàpp jàppale ci ñi nga xamante ne xëy na wër nañ ko wala euh, fi nga xamante ne foofu la doon gën a ràññeeku la muy waa parti Pastef est-ce que mënuñu koon jàppale aussi boo su nekkee dafa bëgg réew mi mu am visa wala am am am am kayit yoo xamante ne ko mën a may mu voyager légalement am nga xam ne aussi tamit ñoo ngi euh, ñoo ngi évoqué cas yooyu waaw man xam nga man dama jàpp ni peut-être euh, comme xas na maam ñun moom génn génn àddina ba pare am na ci yoo xam du ma kii mais en tout cas li may wax mooy que nit booy jël yenn projet yi surtout bu fekkee ni jàng nga am yegg benn niveau bi mhm. ah jéemal wut beneen solution burul gaal parce que am na fi yeneen voies yu fi nekk déjà yow ti xam nga ay nit yoo xam ne mën nañ seen bopp xam nga nit yoo xam ne peut am nañ kii Mm-hmm. mais tu peux faire tes études en France au Canada en Belgique fu nekk mm-hmm. boo demee tey jii mën nga mën nga fa mën nga fa jàng métier wala sax ngay liggéey di jàngaale di mérolé sa famille vacance bi ñëw nga ñëw sa vacance li mm-hmm. jënd sa bopp bu fekkee na yow mënoo lool mais euh, bu fekkee ne wax dëgg yàlla nit ki mënul dem fii ku xaar yàlla yaa yàlla fekk si la tey jii ñu tukki ñu bëri foog ñu ne woon ni ëllëg seen wërsëg dina nekk Europe bañ ñëw wala feneen bañ bañ dem fa mais dañuy xool yoon yu légal jaar ci yàlla dafa la sutura ñu jàll mais gaal moom nit mu nekk jàll ma ñëw de yàlla suturaal la nga am kayit mais nga toog des benn cinq ans trois am kayit mais bu dul tool moom bon bu sañal gars yi bàyyi yoonu gaal bi la on ne peut pas toujours pas comprendre quand même on ne peut toujours pas comprendre li nga xamante ne tey mooy nekk motivation pour euh, pour pour jeunes aussi. di jël di jël gaal di dem. mais maintenant yéen vous de votre coté maintenant yéen lan ngeen jàpp ne moo war nekk seen apport aussi pour que euh, gaal gi bañ a nekk. solution parce mais tamit yéen yéen nga xam ne yéen nekk foofu noonu peut-être que yéen a ngi foofu noonu euh, dem ngeen fa ah lan ngeen jàpp ne tey moom ngeen war a indi de façon mu nekk apport boo xamante ne tey ndaw ñi dinañ leen nangoo déglu ngeen toog ñu toog. plutôt. non non apport bi mooy ma ma ma li mu indi mooy conseil la rek ak sa biir nga la maam nit ki boo xamee sax boo xamee sax boo xam ne jaar na légalement ci yoon dem. Mhm. mais ko moom ban yoon la jaar bu la mënee mu mhm. jàppale ah mhm. nga nga jaar ci nga jaar ci même chemin boobu noonu war fekkee jubal nga ah, nga nga proposé ko benn boo xam ne peut-être moom bu la bu bu financé noonu di nga ci tedd moom dina ci ngeen def noonu maa il faut collaborer avec les gens en fait boo koo xam ne moom mu ngi fii. Mhm. nga proposé ko ay projet wala moom bu la mënee jàppale ci yoon parce que fii ñu bëri noonu la ah da ngay ñëw après nit ñi la bàyyi foo jaar nga ne ko fii ak fii laa jaar. Mhm. mu jéem jaar ñëpp mais yoonu gaal bi yoonu gaal bi saa yi bu jaar ñëpp fii jaar ñëpp doo ñëw tag automatiquement am këyit. Mhm. te obligé wër ku la ku la héberger wala nga wër après voilà en tout cas ku ku nekk Europe discuter ak moom. Mm-hmm.